papa la man rek lañ am si jigéen mu nekkoon nag soutien de famille bu tabaxul ay étages ñun ñoo tax ak mbokkam dekkul dara bàyyi kenn tur yi nag toll na noo xamante ne moom li mu yor tollu noonu ndax ay mbokkam ak ay njabootam waaye nag ñu yàlla yàlla na ko yeneen bi teer ndax mu fay fekk ay waajuram te nag li mu defoon si njabootam yi magam yi ak raqam yi sax laa wax ndax amul mag yàlla dina ko ko fay te bu yaayam di sëgg ak baayam di sëgg di day jàkkaarloo ñoom di sëgg benn yoon am nañu naqar nag waaye sant yàlla alhamdulilah wax ne njaboot la yoroon ci wàllum doom ak ci euh, soxna yi macha allah benn benn benn la bàyyi nag waaye njaboot na macha njaboot na ndax am na ay doom tolloog suñu booy xool ay doom daal ba mu nañu fukki doom macha allah jaboot la woon amoon na yàlla weddi kooku gaañu amaat keneen mu mhm. ngay am ay njaboot yu sew mais nag sant yàlla daal man na yaay teg loxo ci jaboot tey ci fajar waaw mhm. ci fajar man ñaata ñaata ñaata at la amoon muy génn at mbéy 49 la judd 46 la judd 46 la judd waaw mhm. moo doon suñu taar gisan euh, gisoon nañ ne en dehors mu nekk euh, acteur de la lutte maanaam kii bëre. Mhm. nekkoon na soldat. mu nekkoon soldat ne mhm. dafa allié woon euh, bëre ak mhm. soldat. Ah, man boobu boobu laa nag wax dëgg yàlla. ndax maay caat boobu tuuti laa am na lu bari xaw ma ko ci ci arméem daal. waaye eh, nekk nam daal ak njabootam daal moom xam naa ko mais armée jotuma ko nekkee woon ak njabootam. uuf ñëpp uuf ñëpp nekk taaw boo xamante ne moo remplacé papa. suuf ñëpp na wax dëgg yàlla kenn jooyul dara lu am bokk koog njabootam ak ñi ci biti Fass Mbao bi yëpp benn kàddu moo fi daw ñe ndax ñu dëkkoon Fass ñoo dëkk Fass Mbao te ñëpp benn kàddu gi la ñu sant yàlla nag ñaan ak yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam waaw la meloon mu sa dóor doom raqi waxi noppi boo dóoree xale sax da lay kenn du laal kenn moom comme yaay da ko daan wax nag da ngay yàq xel yaa ji yaa war a yar mais doo kenn du yar ndax yow waaw wax dëgg yàlla ku lewetoon bëgg njaboot tam